asalaamaaleykum mbokk yi safoo déglu rajo Afia FM 93.0 ni ñu ko baaxoo di def alxames bu jot su waxtu bi jotee tey nag ñu amati mbégte néew bi du xaw a gudd nag ndax waxtu bi presque li ñuy cëral dafa euh, tuuti trop moo tax fu mu ne ni faw rek ñu daal di ciy profité wax ci ndax bu ñu ci naree ubbi ligne bi waxtaan ci du matale kon nag noonu la ñuy euh, tàmbalee tey jii euh, di leen fàttali rek ne phase 2 bi la ñu ñëwaat tey muy numéro 2. ndax ni euh, un bi jàlloon na ci bee passé mu ak ki nga xam ne moom mooy euh, Ndongo Thiam tey tamit ñëwaat na moom Ndongo Thiam mu fas yéene yeggali waxtaan gi mu nekk membre FEDAP noo nekk tamit président BNDAS muy artisan forever artisan forever nag lañ leen gën a xamee ñoom mu ëmb nag ay kuréel yu bari yu yëngu ci secteur bi muy 120 corps de métier yëpp presque mu ngi ci euh, boobule boobule kuréel muy BNDAS voilà BNDAS. moom moom nag euh, ku ko bëgg la muy fo artisan fo rêve nee na boo bëggee lu yomb ne rek artisan euh, fo rêve moom Ndongo Thiam tey moo dellusiwaat ma bàyyi ko mu nuyoo ñu soobu ci waxtaan ci nu ma gën a gaawee laata ñu ubbi li ñu ndongo nuyu naa la. waaw ah, maa ngi lay fay soxna Aïcha. Mhm. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar. suma mhm. animateur la di leen jaajëfal. Mhm. na seen xarit seen soppe Ndongo Thiam. président BNDAS bloc national pour le développement de l'artisanat au Sénégal. Euh, président collectif des cordonniers maroquiniers du Sénégal et de la diaspora mhm. membre fondateur bu FEDAP fédération des artisans du département de Pikine d'accord mu nga ko ndongo euh, bee nañ ci wàllum coordonnerie yi muy daal sol tey naka a dellu si waat ci nga xamante ne mooy FEDAP euh, kuréel bi nga xam ne bokk ngeen ci artisan yi seen taxawaay ak li nga xamante ne moom mooy Covid bi di boobu mu mel ni am na yenn ci artisan yi ñoo xamante ne nee na il faut que bi dafa xaw a des nga xamante ne ñoom ñooy artisan yi euh, yéen ñi nga xamante ne yéen ngi ci FEDAP di yëngu ci mbir moomu ndax sensibilisation boobu yéen a ngi gën a taxaw ndax nee nañ artisan yi ba tey am na ñoo xamante ne des na ñoo xam réellement euh, gravité feebar bi ba tax na euh, yenn comportement yi ba tey ñoom euh, soppiwuñu ko muy ñooy bokk du su mboxloo ci benn bool ñooy bokk tamit di awante ay kuddu ñooy bokk tamit di naan ataaya ci ay kaas loolu tamit ndax atelier yi tamit xam nga ne bari na mécanicien yaa ngi ci BNDAS FEDAP tamit def naa mécanicien yaa ngi ci cordonnier yaa ngi te yooyu ay atelier lañu ak couture tamit ñoom tamit ay atelier lañu waaw loolu dëgg la parce que sunu atelier dafa laajaat ay réformes mm. yoo xam ne nii war nañ ñu gën a réformer waat ni ñuy nekkee ak ni ñuy toogee même bu ñu génnee Covid bi aussi même avant Covid aussi puisque ni ñuy regroupé même ñun nekkut noonu la ñu gënal dañu amut espace bi war ak aisé bi mais avec la Covid la aussi teewut ñu ngi góorgóorlu xanaa kay dañ leen di dolli. Mm-hmm. mais ñi góor góorgóorlu ñoo ci xam ne nii eh, ñi ngi respecté les mesures barrières. Mm-hmm. yi nga xam ne nii santé moom moo ko jël. Mm-hmm. waaw parce que man mii di wax ak yow. Hmm. foo ma fekk maa ngi ak suma masque. Hmm. ni ma toog ak yow laal naa gel. waaw kon gëm naa ko te def nañu distance. man ak yow. Hmm. te fa ma jugee ba ca sama kër ak fi may liggéey looloo fa am. ndaxte boo duggee ak Covid bi nii ñu toll. boo demoon tey ci atelier yi fi mu toll nii. ñu ci bëri ñëwatuñu forcément sax. distance bi moom moo leen bloqué woon li nga xam ne ni mooy bi fi tëjee couvre-feu bi tëj yoon yi mhm. ah bi ubbee ko it aussi ba léegi am naa te yoo xam ne respecté nañu mesure ñu ngi ciy góorgóorlu mhm. que nit ku ne di bàyyi moromam espace lu mu deelee un mètre un mètre cinquante mhm. ba pare aussi ñuy moytu loo xam ne moom dama ciy sensibiliser ñi nga xam ñu ngi koy def ñu moytu benn kaasu café wala ataaya ay nit di ko bokk. waaw bokk na ci lu yokk jàngoro ci réew mi. Mhm. te ku foog na jàngoro ji amul ci réew mi yaa ngi nax sa bopp lu am la. même bu dul Covid bi sax. waaw même bu dul Covid bi sax dafa doon lu si mhm. bokk benn ab cigarette rafetut. Mhm. ku koy def baaxut tuberculose bi fi ak yeneen feebar ak yeneen. daf koy indi bokk benn kaasu ataay wala kafe siwli siw rafetut. bokk benn butéelum ndox sax di ko tourné di ko paasante. di ko naan yooyu yëpp bokk ci civilisation ak ku ko mën a def. loolu aussi ñu ngi leen ciy dolli suñu mbokk artisan yi. Mhm. parce que man boo gisee man artisan laay défendre fu ma toll. waaw parce que li ko indi mooy. Ah. dañ artisan daal. Mhm. maanaam mooy li may wax te chaque jour. Mhm. dañoo tuddee secteur informel. ba pour ñoom ñun waruñoo civilisé ak loolu ñu wax tubaabe ñu ni ñoo nañ ko bañ ñun ñoo ko war a bañ ku ci ñëw ci suñu atelier yi fekk loolu yëpp ci ñun te am na fi xanaa koy dañ koy dolli mais am na fi. waaw c'est que nag euh, boo déggee ñu bëri nee nañ parce que euh, am na numéro 10 mm. nee na en boo gisee retard am. Mm. Euh, ci li nga xamante ne mooy artisans yi ba tey jii mm. avancé wuñu bala am fenn foo xam ne foofu lañ leen war a teg. neena na ci artisans yi la ci boppam. waaw artisans yi ñoo xamagul ñu ñu doon ba pare. Mm-hmm. yow ndax gën nga loolu. bien sûr parce que dama bëgg artisan te nit boo ko bëggee aussi doo ko jaay. da koy wax dëgg. parce que Sénégal ñu suñu problème mbokk na ci dañu bëgg maslaa mm-hmm. moo ñu yóbbu fu bari fii. bu metti fi eh, ma joxe ci exemple gisee bi ñu ñëw couvre-feu am départ policier dañu doon dóor mhm. man je suis à cent pour cent avec eux parce que xam nañ ne bu ñu dóorutoon ñëpp ay génn duñ ko respecté mais bu ñu ko filmé wane ko yëpp ah te suba ko dóoree wuñu ndax gisuñu bu ñuy dóor ñëpp a toog dafa am loo xam ne ñoo ko war a bañal suñu bopp nekk suñu magi bopp dégg nga fi ma waxee bu baax maa ngi dégg baax foofu laay d'accord parce que ñun ci suñu bopp dëgg la toujours dañu naan état état état mais état aussi bu fekkee ñëw yow état xam nga état lan état du nit administration la rek. Ah. c'est l'état administration boobu ki muy jàppale wala ki muy taxaw wala ki muy lijjën dafay fekk kooku organisé hmm. boo organisé nekk ci càllale. ñu ngeen respecté am fa ay règlement intérieur ak i norme ngeen respecté ko. Hmm. soo leen ñëwee day wax ak ñaar ñett lay waxal ñooñu ngeen wàcc ci base bi wax ak woote réunion waxtaan ak waa ak di def lu ñu tuddee suñu bopp muy informel. Mm. nit ku nekk identifié woo amuloo këyit. fii bari na artisan dañ naan artisan artisan artisan amuñu même pas carte professionnelle chambre de métier même man loolu lu may xeex bët bu set la. parce que bala nga ne naam da nga fay ne. Mm. carte bu bul wax lu mu lay indilagul. am ko ba pare soo ko xam lu mu lay indilag lu mu lay xañ. Mm. mais na ko am formaliser wu d' abord ñu xam ne yow tu es un artisan. tant que amuloo ko xamuñu loo doon. te dafa bari aussi ci suñu biir. kon daal pour yow euh, artisan yi dafa muy formalisé wu muy am na ñoo xamante ne loolu formalisation boobu noonu euh, ba artisan yi fu mu ne nii euh, nanguwuñu formalisé yéen waa FEDAP mm-hmm. daanaka Massi la Mouss ak Alassane War bañ fi jaaree wax nañ ma ne. Mm-hmm. waa FEDAP moom xamuñu lan la ñuy wax ne formalisé wu. Mm-hmm. waaye ñoom presque ñu ñu këpp kuy dugg ci ñoom dangay ngay formalisé wu. est-ce que teewoo gisoo ne ñu bari ci ñu retard ci loolu loolu moo moo ko indi. moom laay wax kay ñàkk formalisation boobu noonu moo tax suñu retard bu bëri ñu si secteur loolu la yow da xëy nekk ab tailleur wala ab mécanicien wala ab soudeur métallique wala ab cordonnier wala bijoutier toog sa place ne man artisan la te amul daara daara luy jëmbal artisan carte d'identité kenn du ci def artisan sénégalais moo fay ne nationalité sénégalais da xam ne sénégalais nga mais booy doxee tali bi dem lan moo wala état am lu may artisan yi ñoo xam ne ku amul carte professionnelle doo ca jot loolu moo lay war ne artisan mhm. moo tax ñu war a formaliser wu mhm. wutal sa carte professionnelle soo xam après carte professionnelle bi lu mu lay offrir mhm. koy xamee tant que amuloo ko nag mun loo xam lu mu lay offrir damay dégg naa ah boo formaliser woo dara non bu ñuy dox ci amalgam loolu day indi amalgam da nga ciy nekk ba pare soog ci mën a wax da nga naan naam bala nga ne naam da nga mën a nekk boo fa nekk doo mën ne naam loolu dama ciy dolli artisan yi ñu gën ci góorgóorlu aussi ñun ci suñu biir ñu xam li ñu yore xam ñun ñooy ñan mhm. xam place yi ñu ne mhm. buñ ko xamee ñi ñuy seqal muy état dina xam ñun ñooy ñan mhm. mais tant xamuloo yow yaay kan mais ki ci tali du xam yow yaay kan parce que yow yaa war a xam yow yaay woon kan montré ko qui êtes-vous yow yow yaa koy wane après ci yow loolu du doon ay wax ci sa façon doxalin sa dundin say comportement say défin ci la xamee kii moom mooy kan loolu aussi sensibilisation bi dañ ko war a dolli ñun ci suñu biir bokk na ci euh, euh, loo xam ne nii dama ko seetlu ci artisan Sénégal artisan yi ñooy ñoo xam ne fu ñuy am atelier sax ci koñ ñaare kër gi nga nekk ñoo la luyee magasin et tout bu ñoo ci xam ne nit kër googu amuñu droit sax dugg fa dem toilette wala jàpp wala def wala wala saw te jàmbur bi dox ci mbedd mi romb dem bu duggee ñaan dañ koy may mu dugg dem toilette jàpp fa saw julli génn dem yoonam mais mooy li wax toujours ci ñun la parce que bu fekkee dañu luyee ab magasin aussi nga dem ba ca buntu place ba jël fa un mètre cinquante ko ba a dugg ak désordonnement ak mbalit ay lii aussi duñ la respecté ñun ay liggéeykat lañu. Mhm. li may wax toujours duñ ay vagabond duñ ay wëyu ay liggéeykat lañu kon nag am na aussi loo xam ne ni man dama bëgg ñu dem fa sori te nit ki boo ko bëggee aussi moo ko sax njaboota yam faa ngay waxtaan ak ñoom aussi di xool léeg-léeg li nga xam ne normal ci kër gi. Mhm. pour ñu soppi loolu. ñu fexe incarné suñu bopp dëggal suñu bopp mooy li may kaas bu set. Mhm. réew mi nekkul ñu jàng tubaab ñoo ko war a ñooñ ñoo ci war a wax waaye ñun ñooy ñu koy defar. ñooñ ñooy nekk ay ah, euh, policier avocat di orienté ka boo xeexee ba ñu àtte mais balaa xeex ba ñun la. ñun ñooy ñiy liggéey ñun ñooy ñee xeex yi ñun ñooy ñiy def lépp ñun ñooy réew ñun ñooy liggéeykat yi ñun ay liggéeykat lañu. Mm-hmm. artisan ci olof mooy liggéeykat du waxkat. li nga wax bu baax maa bu baax ñun du ñuy wax kat ay liggéey kat ay jëfkat koo ci nekk danga koy jox xaalis ne ko lii laa bëgg mu jëfal la ko muy objet teg ko say loxo te ba nga ñëw fekkoo ko fa. Mm-hmm. kon ñun ay jëfkat lañu. vraiment kon ñun aussi suñuy comportement war nañ ko mën a xoolaat suñuy taxawaat fexe rang yi jub dinañ yóbbu fu sori parce que tey boo gisee ma ñëw ci point boobu di dal ci ñun dafa bari loo xam ne ni ñun ci suñu biir dafa nekk ci ñun. Mhm. après ñu soog a dem ci état. Mhm. tant que nag loolu dañu ci ñun a ñëw demee ci moom mhm. parce que ñun ay personnalité lañu. te état sax loolu da koy arrangé. bu ñu tasaaroo da koy arrangé dañuy néew doole dañuy affaiblir ñun. parce que xam nga lu tax. danaa day am lay fu mu taxaw xaw ma ku may waxal la ñuy wax. saa su ne. Ah. kan wax. su est-ce que kon euh, Ndongo laajul. Hmm. Euh, comme euh, FEDAP. Hmm. daanaka kuréel la bu mag parce que ñu ngi naan mu ngi fédération des artisans départementales. Hmm. des artisans de Pikine. voilà léegi nag bu ko kay ku nekk Grand Yoff. déggee danaan kon ñi Pikine rek la ëmb. ak ñi mu ñu mu ñu mu wër. léegi est-ce que tamit laajul ngeen xaw a gën a bind Pikine bi xaw a am dend lu kii mbala. sinon ngeen am beneen slogan bu ngeen def pour mën a xëcc ki dëkk parcelle mbala ki dëkk géejawaay ak ku dëkk noonu mu nekk benn bloc boo xamante ne day nekk Dakar au niveau day nekk ci Dakar benn kuréel gu mag boo xam ne yéen ñëpp ñoo leen ciy boot waaw peut-être loolu mën na nekk parce que ay organisation yeneen yi mag ñu ngi fii yoo xam ne c'est national comme lu mel ni la CONOMAS confédération nationale de maîtres d'apprentissage du Sénégal kenn moomu ko kuy artisan du sénégalais yaa ngi ci biir. ah Konomaas. Konomaas kenn moom ko du moomeenu kenn. man donc Thiam mii mën naa ne président ba benn bés jiite Konomaas. mais Konomaas est-ce que kon waru convoqué euh, kuréel yëpp nga xamante ne. c'est de département la la wax. département de Pikine dafa yaatu boo dem ba Kër Massar benn baraag yëmbal Boul Malika yooyu yëpp moom moo ko ëmb. caaro hmm. yi loolu yëpp ci ci Pikine dafa rëy. dafa hmm. am ginnaaw mooy département bi ëpp ci Dakar. Hmm. man Ndonga villa 10 35 Aynoumane 2. waaw ah. rue 10. man mhm. foofu mooy sama kër fa laa dëkk. Mhm. originaire de Diourbel laa nag waaye fii ci Dakar man Pikine laa logé fa laa dëkk. Mhm. mooy sama adresse. et fédération bi ma leeralal ci ñu bëri même cordonnier yi sax dama leen fay dugali. parce que ñi ngi fa mais faaw ma gën a defaat sensibilisation wala c'est quoi FADAP. parce que association boo ko yoree ba pare. fédération moo lay tënk. Mhm. fédération bi ñu ko yoree ba pare confédération moo koy tënk. Mhm. fédération ñun dañu yore ay association man dama yore président ay association laa yore. Mhm. ci kaw association yooyu dañuy liggéey ak fédération. fédération boobu dafay liggéey ak confédération. yëpp ay membre laa fa man nii bokk nag ci ñi ko sos. yàlla def it aussi ma doon fa ku ñuy déglu. Euh, muy ay kuréel yoo xam ne. Eh, gis naa tànk yu ñuy liggéey ci artisanat te amu fi woon mhm. te ñun suñu tasaaroo bi def war a jóg léegi ñun nag suñu genre yi nga xam ne ni ay président d' organisation lañu OPA yi nii organisation professionnelle comme euh, association collectif des cordonniers maroquiniers du Sénégal ay BNDAS artisan forever yu mel noonu mi ngi mel ni euh, façon bi ma koy wax may ne damay wax doxinu murit mhm. sëñ Tuubaa bi mu ñëwee di sëñ Tuubaa dafa ñëw fekk fi ay tarixa ay mhm. mais dafa créer ay cheikh cheikh bu nekk bu bàyyi la ci zone cheikh bu nekk moom mooy convaincre fa mu ne base boobu moo ko yor mhm. bu pare addiye ju mu fa dajale dong bi fa dajare bu pare moo jël lépp jébbal ko xalifa général des mourides mhm. est-ce que dégg nga wax bi bu baax dégg naa bu baax li nga wax ñu jël ki ci bi allo allo allo oui allo asalaamaaleykum maaleykum salaam maa ngi leen di bu wér yal na yàlla nangu ziar ñu bokk ko amin amin amin Pape Matar Thiam la Pape Matar Thiam noo def sant yàlla suñu borom bu wér ay tabagay waaw Pa noo def waay maa ngi lay jaar di namm bu baax a baax ñoo la raw ñoo la raw Thiam eh, di nuyu sama doomu baay ndongo Thiam mm-hmm. eh, di ko ziar bu wér di rafetlu taxawaayam ci secteur de l'artisanat mm-hmm. donc keroog duggoon naa mais eh, affaire bi dafa daggoon moo tax mënu ma woon duggaat dëgg la dëgg la c'est juste pour ma am quelques témoignages ci moom mm-hmm. Euh, Sénégal dañu soxla ay leaders yu mel ni moom mm-hmm. parce que dëgg la euh, artisanat lay xeexal moom lay taxawal mm-hmm. mais position bi mu nekkee jàpp naa ni ñi ngi xeexal sénégalais yëpp parce que boo développé benn secteur ci benn côté rek daanaka développé nga yëpp mm-hmm. sa artisanat dafa ëmb lépp artisanat dafa ëmb euh, lépp loo gis ci àdduna rek artisanat moom moo ko ëmb kon képp ku ci taxaw di ci wax Euh, nekk ci benn leader bi man dama lay fonk dama lay bëgg parce que aw ma lu dul artisanal aw ma tamit lu dul sénégalais sénégalais la hmm. Sénégal euh, gis naa ay taxawaayam gis naa tamit ay réalisation moo xamante ni def na ko ba ci Covid 19 bii nga xamante ni hmm. bërki dem moo njaay hmm. euh, mu dem uuti xaalis jox ko yi nekk ci kuréel bi ni leen ñaw leen su ngeen ñawee ba pare ngeen jëlaat xaa ma fay leen ba pare ngeen distribué waat ko seeni nit mm-hmm. xam nga loolu euh, nekkul lu yomb geste boobu dama ko gis mais daf ma marqué du ma teyer mm-hmm. mais daf ma marqué mm-hmm. waaw daf ma marqué trop trop ba tax na ñu ngi koy encouragé bu baax a baax euh, di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal mbooleem jullit parce que euh, dafa am ay leader yoo xamante ni tey dañ leen a war a protéger dañ leen a war a dañ leen a war a jàpp dañ leen a war a ñaanal jàmm hmm. parce que ñu amee jàmm rek Sénégal dina am jàmm ndax fi ñu teg seen bët moom moo kawe hmm. te li gën a jafe ci nit ñu ngi ci ñoom hmm. mooy dëggu ba pare am fit fayda gëm sa bopp man loolu dama ko gis ci moom man xam nga aw ma habitude di wax ni nangam ak i sàngam li ma gis rek moom laay wax ah voilà donc dama ko gis ci moom maa ngi koy ñaanal bu baax a baax di nuyu euh, Penda Ngane Sougou maa ngi koy nuyu bu baax génn ñëw déggante maa ngi maa ngi koy nuyu bu baax a baax di leen encouragé mm. di leen ñaanal bu baax xamaa damay bàyyi gars yi ñoom ñu mën a dugg merci beaucoup incha allah merci beaucoup Ndongo Thiam ñu ngi déglu ah merci beaucoup merci Pamata Thiam merci beaucoup jërëjëf Pamata kàddu yi rafet na trop kooku kooku kii li muy def ci bijou ak weñ gu ñuul maari béytaal yi Sénégal gépp ko war a xam macha allah ba ma daal jàmm kii artisan la lépp <laughs> la exposé ci àdduna du fi du fi du gan ñëwoon na ci wax dëgg ci yàlla suñu xarit la de hmm. saa su ne day lu li nga xam ne mooy émission bi lu ko ñor la du ci rate dara hmm. ku ñu mës a invité ci plateau bi rek Pamatar woote na moo xam hmm. mécanicien moo xam tailleur moo xam menuisier ku mu mënta doon rek moom day dugg di participer ñu koy rafetlu bu baax a baax gis tamit nu mu téewee lii di émission bi euh, ba tey di fàttali mbokk auditeurs yéen a ngi déglu seen émission pencum artisanat ñuy déglu Ndongo Thiam euh, di membre FEDAP président BNDAS di artisan forever nekk tamit euh, président des collectifs des bu cordonniers bijoutiers et maroquiniers du euh, Sénégal ak de la diaspora mu nekk nag koo xam ne casquette yu macha allah yu mu yore. Mm-hmm. ba tey mu ngi koy diriger ci na mu ko mënee naan nit ñi mën nañu woote rek ci 88 628 05 05 88 628 05 05 mbaa ñu déglu ñu via YouTube en direct euh, Afia FM bu ñu ko cliquer incha allah. Mm-hmm. mu nekk kon émission fu mu ne nii mu ngi daw en direct ko bëgg a suivre te jot loo boo demee YouTube di ko fa incha allah di nga gis direct bi nga suivre ko dala du la ci rëcc. Euh, bu weesoo loolu euh, ndong ñu ngi doon wax ci li nga xamante ne mooy perspective yi nit ñi war a taxawee mooy artisan yi mhm. ngir rek ñu mën a booloo ba doon benn wax nga ma ci FEDAP nu ñu boolooyee muy banlieue bi et le regroupé bu mhm. Pikine bi mhm. mu mel ni nag bëri na ñu fa nekk mu nekk gox boo xamante ne bu yaatu la ak ñu mu ëmb yëpp dafa yaatu mu nekk tam kuréel goo xam ne mu ngi boot tamit euh, cent vingt corps de métier yi presque yëpp mu leen boot ngeen bokk ci Konomas kon Konomas moo waroon def liggéeyam mm. dajale kuréel yëpp mu doon benn euh, euh, kii mag euh, confédération su ko mm. defee confédération boobu mooy mën a di waxtaan ak lii di état ndax état comme ni ko waxee administration la mm. yéen yéen liggéeykat yi kon nag il faut que administration pour mu mën a xam ñii liggéey mën leen ràññee foog ngeen am nu ngeen taxawee muy carte membre yi carte professionnelle yi mu ngi noonu léegi nag bu ñu jógee foofu am na benn feebar boo ne a ngi xam dina liggéey mm-hmm. ba dem retraite mm-hmm. moo xam maçon bi moo xam mm-hmm. menuisier bi moo xam mécanicien bi te duñ la ne immeuble bi moo ko moom te maçon kër gu rafet bu taxaw ñoom ñoo ko taxaw tailleur nit lu mu sol même bi dee sax ay njiitum réew lu muy sol sax tailleur ak a ñaw ak fu mu mënta nekk nag tailleur ak a ñaw artisan ak a ñaw waaye ñoom mënuñoo taxaw ba ñu ne la kër gii immeuble bi artisan ko moom loolu lan la lu ko rek donc voilà dangaa wax wax bu am solo euh, mu doon lu ma naqari bokk ci lu may combattre man lu may xeex toujours ma ne leen ñun duñu ay kat ay jëfkat lañu boo gisee sànq ni ma duggee mel ni ko dal li ma nekk muy artisan yi dama leen gëm dama leen bëgg te nit boo ko bëggee doo ko jeey danga koy wax ay defum yaa ko sañ wax da koy naqari waaye bu ne la ba yor xam ne li ma wax dëgg la parce que man ci biir laa ne ku xas artisan wala nga saboté ko man la hmm. artisan seen bopp bi yëpp ñu ci bari la majeure part dañ koy yemale ci ay na ma financé xaalis financement boo xam ne amoo projet <laughs> ay cent mille deux cent mille trois cent mille nga lekk ko nga lekk ko ne patix toog kala la koy jox at mu jot mu wékk la ko ba bu bari cee dootu am sañ-sañ sax laaj li nga bëgg parce que dafa am fu la kepp ñu war a éviter yooyu. dëgg la projet il faut ñu rëy bët. Mm. nga dem dem ci benn expert bu mag agence bu mag. Mm. mu tëggal la projet bu bu bu nekk boo xam ne du ay xalaat gént bu wut xaalis. Mm-hmm. nga dem. proposer ko fa fi nga war a jaar. surtout ba pare léegi pour nga am loolu mooy li may wax ki amul carte professionnelle nan lay amee ay pension retraite. waaw retraite de moom man. mais oto te connaît même pas yow sérieux xamu la recensé gu ñu la yow. yow yaa toog naan artisan la artisan la mais état xamu na yow artisan nga di xamu la parce que yow inscrire oo ci liste chambre de métier da nga fa war a dem nga inscrire foofu. ne man commerçant bi chambre de commerce boo demee dafa dafa ci nee naa la euh, crédit mutuel du Sénégal. inaakuwaa ko taxawal ay commerçant ko taxawal ci organisation bu ñu organisé wu moom moo leen ko may ay sénégalais lañ comme ñun dañuy jënd di jaay ñun ñuy defar la ñuy jënd di jaay nag ñun ñun ñun ñoom ñu dem ñun mënuñu dem loolu mooy ñun la ñun dafa am woon dañ koy wax dama gis chaque fois ñu naan état état état am na ci loo xam ne ñun la ay organisation professionnelle ñu fi nii yoo xam ne ni bu ñu nee cotisation ay weer 1000 francs téeméer sax ñun artisan dañ naan dañ ko bëgg te joxewuñ ko ñu ci bëri dañuy ànd ci yenn organisation comme espion di déglu mais duñu gëmuñ sax li ñu dugg dañ fay nekk comme pour déglu rek parce que boo déggee may wax foofu dafa di am lu bëri loo xam ne man dama ko gis te dañ ko war di dénoncer di ko wax jaaxaandi saw nax sa bopp la ñuy yaatal ci suñu biir chef d'organisation te di ne ci ko muy man di sama morom loo dem doxi ci direction wala ministère wala dara nga woo askan wi la jiital surtout day gën a tax ñu am confiance ci yow teg ci taabal ji jàkkaarloo gaay mooy def réunion nëbbante gi jeex na wax lañ fa jëlee hmm. xam ne ne kat yéen yéen a ma yónni woon ba hmm. ma demee li lañu fa wax ak lii ak lii gis na loolu lañ la wax fële bu dee baaxut ñoom buñ ne non non non da ngay am doole ñoom ñooy génn jëmmal la kooku dalay ragal suba day def li ngeen bëgg hmm. waaye tànk yéen koy nëpp nëppal ci suuf dalay ñamal tëj sa gémmiñ dootoo wax boo déggee ma am audace waxi nii may wax man du ma dund ci ay gere ki ay ay ay business pour muy leer c'est-à-dire lii may wax dama ko maîtriser ba pare dund ko di ci woo jeunesse bi pour ñu taxaw ci façon boobu muy président de la république loolu la bëgg même ministre de l' artisanat bu fi mu nekk ba ci bii fi nekk tey jii loolu la ñu bëgg artisan yi ci boppam organisé ci càlla bi yombalal ko liggéey bi ñu def ak ñun ay résultat mais tant que ñu ngi wu ku ne naan kii la wala kii ku ne naan kii la wala ku nekk di xëcc seen bopp di taf benn ndëndam wut ay nitam waaye fii bëri na fi organisation yoo xam ne du ma ban maa ko wax boo leen joxoon cent ne ko sa biir kër ngay commencé yàpp mu fees jabal ma ab mini car sa kër mobiliser mu fay artisan ñu ñëw du fees te yaa ko jox cent mille ne ko def ko da ngay dem APEX gi dem jënd saw kayit ñëw ne man maa yore kuréel nangam mbaa jiite ñoom nangam boo gisee may waxtaan li may wax man damaa mënut ay tappale ci tricher li may wax dama ko gëm. li may wax dama ko gëm. parce que loolu foofu Aïcha loolu dafa doon lu ma mës a naqari. Hmm. te bokk na di tardel suñu secteur bi. Hmm. tant que ñu ngi ci nag dana nekk ci groupe WhatsApp ak te duñ def benn résultat bu concret fii ci réew mi bala nga ne naam da nga fay nekk. Mm-hmm. nañ leen gën a organiser wu defaraat sunu ay toogaay yi li ñu war a waxante sunu biir ñu jàkkante ci jàkkaarloo ci respect waxante ko ci respect. Mm-hmm. ñu xool li baaxul ñu dindi ko teg li baax billaahi bu lépp baaxee teg mais ñun ñun ñun gouvernement ñaata nit lañ gouvernement bi chaque jour génne nangami ministre lañ dañ leen di wàññi ñun mënuñu ñoo wàññi ñoom ñu ñuy ëpp doole dañu teg ci yoon saa su nekk ñu ñu doole de ñun wu ñun. d'accord. léegi euh, ministre bi euh, est-ce que tamit euh, laajul ni mu formaliser tamit ñi nga xamante ne yor nañu seen i këyit mhm. te ce sont des artisans parce que am na artisans yoo xamante ne comme kuréel gi di FEDAP chaque jour ni ñuy jooy mooy formalisation ñëw defal leen ay formation mhm. daal di xam ñoom ñooy ñan ak yenn ku nekk ci li mu parce que bari na am na ay projet yu bari ñoom ñu ngi koy ñu ñu ngi ko teg ci table bi war koo mën a defar pour mën a suqali li nga xamante ne mooy réew mi ñoom nee nañ wutuñu dara lu ñu bëgg rek mooy ñu indi leen former leen hmm. xam nga xam ñu xam ne lii lañ leen former ñu ut jël ci formation boobu accompagner leen ñu mën a suqali réew mi est-ce que tamit ah, parce que su ma déggee rek mel na ngaa juum ñaari question nga ma laaj hmm. ndax da nga ne ma lu tax ministre boobu formalisation formaliser nit ñi mënul forma mënul former nit ñi former former leen ak formalisation xam bokk yow yaay formaliser ji sa bopp waaw moom bu paree formation la la mën a waaw mais ah, formation yi boobu ñu koy laaj ak équipé la accompagné la mooy moom accompagné la waaw financement nag soog a ñëw ndax nit ki da ko formé ba mokkal bu mokkalee ba pare nga wutoo ko équipement li mu war a liggéey muy ay nga tegal ko ko soo ko wutalee outils ba pare nag mhm. nga soog ko nag accompagné ci liggéey bi noo koy accompagné fond de travail fond de mhm. roulement bu mu liggéeyee bu liggéeyee ba pare bàyyee boo ko de état daf la war a protéger ba nga mën a écouler su produit. mais loolu nag am na kuréel yu bari nag ñoom loolu la ñuy souffrir ñoom formaliser nañu seen bopp ba pare. yor seen lépp te état jàppale leen. ci loolu loolu loolu devoir état la est-ce que ñoom it aussi ñi ngi dem fi ñu war a dem parce que boo defee loolu yëpp pare téye ko sa almuwaar toogit état du ko xam di man protéger ma état saa damay waxtaan ñu waxtaan li fi ne. boo paree man li ma dàq ko da ngay dem bind fi nga war a bind jaar fi nga war a jaar nga dem nag ba déglu leen ba pare. gis nga boo demee defaluñ la wala faalewuñ la man ndong dangay ngay dellu ci rajo bi nii wax ko parce que lu ñu ci defee daam décharge ba ma ne man jaar naa fii ak fii ak fii léegi ñoom faalewuñu ma naa nga ma ñëw ci rajo bii nii mbaa ci télé yi wax ko fa. mais yow kuréel gi ngeen nekk. mais man formé nañ leen. kuréel bi ñu nekk ñun. FEDAP FEDAP. waaw am na ay formation def na formation defati formation def fi ay vraiment ay bës yu yu neex te yaatu def fi ay randonnée xam nga. li mu ci liggéey daal bari na ci. mais seen propre moyen. ah seen propre moyen. seen propre moyen. yooyu seen propre moyen seen propre moyen parce que ñu fa nekk dañuy cotiser. waaw ah. seize ah. waaw ah. les seize communes yi nga xam ne ñu ñoo nekk ci département de Pikine yëpp. Hmm. maire yooyu yëpp FEDAB dem na fa def na fa réunion ak membre am yi mu fi am te collectif des cordonniers marocains du Sénégal ci tànk yooyu la nekk BNDAS gi nii ñun ci liggéey boobu la ñu nekk aussi pour fépp rek. foo xam ne nii war nañ fa mën a dugg dajale suñu sensibiliser leen dinañ fa dugg man nag man maay président organisation yooyu di membre FEDAP BNDAS ci liggéey boobu laa nekk may nuyu Grand Yoff bi ma nekk membre yoo fi am ñoom Adja Koumba Tine mhm. maa ngi ko nuyu de passage ak ñoom Soxna Khady Koli mhm. maa ngi leen di nuyu ñoom ñoom ñëpp Adja Woli Mata Fall maire Woli Fall maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp sumay membre nekk fii ci Grand Yoff nekk ay jàmbaar nekk ay soxna yu brave yow mii defe naa xam nga seenu bravité. macha allah léegi euh, ndongo. Mhm. bu loolu weesoo ñëw nañu ci euh, formation yi wax nga gars yi ñooy formaliser bu pare pour état mën leen forme te tamit na artisan yi dox ni nga xamante ne moom mooy seen euh, seen seen seen seen njëriñ. ci pour mën a accéder wu ci formation yi ñu accompagner na équiper leen. Mhm. ba pare jàpp jàppale ci seen i liggéey ngir ñu mën a suqali réew mi mhm. bu loolu weesoo yéen yaa ngi jiite tam li nga xamante ne mooy benn. DAS mu nekk kuréel boo xamante ne ëmb na 120 corps de métier yu yëpp 120 mhm. de corps de métier yi mu kii muy artisan forever mhm. tey jii bari na ma yëngu ci wàllu social bi mhm. foofu noonu ndax yéen a ngi dox social ndax am na kuréel goo fi gis tey jii man am na yu bëri mais rek yéen da nga dégg ne la fii cité Sénélec la fii cité Euh, SDE mbala cité nangam cité mais lu tax artisans yi bu ñu defee seen kuréel pare du ñu am cité boo xamante ne ñoo ko jënd cotisé jëndal seen bopp mhm. euh, euh, jox ñi nga xamante ne ñooy artisans yi xamante ne ñu ngi liggéey te ñu ngi loolu kenn ku ne am ci seen kër social boobu mhm. du rek rek kii am na ngénte ñu dem cotiser mais war ngeen am vision de loin boo xamante ne tey jii da ko fi bàyyi seeni doom boo léegi ñu xam ne sama papa ci lii la amee woon li mhm. ah soxna Aïssa fi nga daal am na solo ah. mm. yow de loolu moom mooy samay waxtaan ak samay réunion toujours ak suma engagement man man vision boobu la am et eh, que toujours moo wax ne artisan du kiy toog ci mbaar mi nii rek wala taatu garab ji nee naa la am katu xaalis la liggéeykat la kooku kon dafa war am xaalis di des mooy ñu intégré ñun dañu war a intégré ci réew mi mu wane ñu ñooy ñan xamal ne mbir mi toujours moo koy wax du njàngum français kase jàng français pour xam la du pour am du pour mën pour xam la mais liggéey ak jàngi métier moom pour am la pour xam la ñaar la boole di nga xam-xam boo liggéey ba di man ngaa jàng ba pare di taxawaalu fii ba màgg doo liggéey sax jàng moom pour xam taxuta am taxula man nee naa la fii kii naa la ingénieur la wala nangam la day ñëw tiim chantier bi mu rëy lool tibb benn suuf àttanu ko sax pour yëkkati ko ak ni ñu koy këpp xamul da gas leen fii rek gas leen wet geeg foofu day am ndox ak bu leen fa gas yooyu la xam day wax rek waaye du jëf ñun nag ay jëfkat lañu lii ngay wax pour ñu taxal ko faa ñoom ay coopérative puisque boo bëggee dem ci wàllu suuf rek faaw ñu am coopérative. Mm. coopérative boobu pour mu taxaw te BNDAS bloc national pour le développement de l' artisanat au Sénégal man Ndoga Thiam mooy président ba mu ngi judd samedi 7 décembre 2018 à Mariste. Mm. de villa numéro mm. may gërëm di sant doyen monsieur Ngodo ak secrétaire général Soxna ne saw ak la trésorière madame Ndiaye Koumba Diop suma yaay Ami fay présidente serre bu Kaolack CRK euh, moom moo ma représenté Kaolack. soxna Afsa Ndour Diourbel Jaaja Balde Tambacounda euh, Sose Kolda euh, suma yaay Aminata Ndombo après ñu gërëm leen après gërëm leen mhm. Tambacounda mhm. Elma Thiaré Fatick mhm. dam kon daal national la ok su ma doon lim fii laa yem fii la ñuy muy dafa ëmb 150 corps de métier muy BNDAS ah, bloc national pour le développement 150 corps de développement de l'artisanat au Sénégal muy organisation boobu nga xam ne man noo nga ci président bi ñu yàgg di ci liggéey projet yooyu nga wax yëpp mi ngi sunu kanam parce que ay kàng fóore fa nekk ak borom xam-xam te ñooñu ma diriger est ce que xam nga ne ñi yoroon ni récépissé ci yeneen organisation yu yàgg yàgg yu mag yu xees jal ñoo ma jël doon ay yaay ak papa ak ay grand frère jiital ma seen kanam ànd ak man di liggéey may sant ñoom ñëpp di leen gërëm ñu mhm. boromi xam-xam dajef dajewuñ fa pour lenn lu may bëgg fi def lu fi kenn mësul def mhm. bëgg fi euh, soppar ñi artisanat mhm. lu fi kenn mësul def bokk na suñu objectif moo tax BNDAS ma wax ci dina yomb. coordinateur bi Sénégal man ndongo ci am du ma bàyyi dañ koy moderniser bu soobee yàlla. dañ koy moderniser waaye yow ñun ñoo mën ci réew mi aw daal doomu aadama dina daal. d'accord am na am na na. alors mën eh, def boppam leen sax dem. waaw mm. ah, mm, waaye mbubba ko daal dañ ko war a fonk ci doomu ci kaw suuf dafa njëkk a warmaal doomu aadama. Mm. te dafa rafle ay taxawu fi mu toll nii. te nekk nag secteur boo xam ne nii secteur bu ko dàq créer d'emploi amul ci réew mi mais dafa rafle ay taxaw ndongo ci am désormais dafa taxaw pour wutal ko taxaw d'accord bu weesoo ngeen organiser ko dañuy ko organiser kii tamit li nga wax ne yéen a ngi xalaat li nga xamante ne mooy kër yeek yooyu parce que tamit mhm. même artisan bi sax bu feebaree fu ne nii pour faju problème la waaw loolu tamit am na fi waaw waaw mhm. tamit ci li ngeen toll suñu semi dinañ ci liggéey couverture malaadi universelle bi maa ngi nuyu soxna Ndeye Amy seen mi ngi ci biir euh, organisation BNDAS yooyu yëpp y des experts dedans ñu ngi ci biir ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi liggéey comme kuréel gi nee naa la décembre la juddu yàggut mu doon na kuréel gu barke tur wa rëy na mbooloo mi bari na liggéey bi gaaw na ndax nit dañ ko soxloon dañ ko nam am cofeel am yaakaar aussi ci président ndongo bi ñuy jiital tax may sacrifier suma bopp di reyante pour def ay résultats parce que xale laa ndaw laa l'avenir devant nous. Mm-hmm. te doomu aadama yi am nañu yaakaar ci ñun. kon nag war nañu liggéey nee naa la war nañ mën am considération bi la ñu bëgg bu baax. Mm-hmm. bu artisanat bu Sénégal. Mm-hmm. ci laay liggéey nu ñu def ba am ay logement yu baax. pourquoi pas artisan bu bëggee oto sax duñ ko ko lebal. pourquoi pas waruñu am suñu passion retraite. yooyu yëpp mën nañ ko am parce am kat ñu tawat si suñu njaboot ñu mën ko faj. mooy ba ci sa jabar mu faju te doo fay. loolu yëpp mën na nekk mais dafay laaj ñuy réorganiser wu. dafa nekk secteur bu naqaree organisé parce que ni ñu koy wax secteur informel mooy li may wax chaque jour dafa bari ñoo xam ne jànguñu. Mhm. wala bu ñu jàngee tool ñi alxuraan la ñu jàng ñëw ñee jàngi nasaraan ñëw ñii jotu ñoo jàng dara. ñu ñoo daje ku nekk ñëw avec niveau bi mu indi. dëgg la léegi nag nga war a fexe ba niveau yi tolloo. Mhm. loolu rek ab liggéey la yombul. Mhm. dégg nga ki jàng alxuraan ak ki jàng nasaraan ak ki jàngul dara ñoom ñoo boole ñëw. Mhm. ñu war a ànd mais nag seen bopp yi fees dell ñu di kànfar ci métier ñor nit yu xaral muy góor gi di jigéen ñi. Mhm. beneen bi aussi sunu produit local yii nga xam ne fii lañu koy bayee ci réew mi mooy baat bi muy wax chaque jour. transformation bii liñ ci yor ciy jigéen ci réew mi ñu nekk jàmbaar. Mhm. du jeex ñoo xam ne nii. lii ñu yor am naa ci ñoo xam ne produit yi ñu yor ay naar nañ ba Dubaay di leen ko commandé di ko jëlee ci réew mi fii di ko yóbbu. te ñooñu war nañ leen mën a jëmmal wane leen ci réew mi que loolu naar yooyu di jënd si mën nañ ko jariñu suñu réew te ñoom ñoo koy def fii mhm. état jàppale leen bañ am seen produit dañuy liggéey lu rafet dañ lay defaral caakiri boo xam ne ni muy neexee ni muy mel mais maanaam bu ñu paree emballage ba ñu koy def tax na doo am appétit lekku waaw fu mu ne nii sax dafa mel ni euh, Covid bi sax am na loo xamante ne feeñal na ko ci artisan yi ndax booba léegi amul pro frontière yëpp dañ ko tëj mhm. amul produit bu jógee bitim réew ñoo dugg ci biir réew mi mhm. loolu lu fi desoon moom la nit ñi écoulé mhm. bu weesoo loolu li nañu doon li nañu di defar fii moom la ñuy lekk léegi su loolu kon autonomie bu ñu xawee góorgóorlu tuuti suñu attinaay mën na dañuy dem suñu yoon suñu góorgóorlu tuuti Covid bi dafa am na ñu mun a jàngal restez chez koy wax jeexal lay wax ku ne na toog tey li moom ñu dund ñu dawal ñu xool ñun Sénégal naxuma la de di benn côté dañu ragal tuuti rek mbaa ñu desee gëm suñu bopp mais on peut aller loin ñun lu ñuy wuti am na fii am nañu espace dawal fi di dem Ndar wala ngay dem Diourbel wala Kaolack wala Fatick àll bi da nga xam fi sa bët yam lépp suuf la te fu loolu yëpp ndox la ndox it manqué wuñu ko dégg nga wax bi bu baax ci maraîchage bi laay wax noonu mën nañu xotti suuf si bay nu ñu neex nañ jëli ay partenaires yu tubaab nax leen nax gi mooy indi leen ñu tàggat suñu doom bañ man ñoo ne acca dem leen jël suñu doom investir leen ci suuf suñu bay ñu dund ñu jariñu fii ci réew mi suñu artisan yi fi nekk ñu protéger leen signer leen ay coopérative partenariat international xoolal uude yi Korite Tabaski li ñu ëw lépp ñu ngi fi nii tege depuis ko ba léegi lépp dafa tëje lu ma teg bët ay millions millions yu peere daal la ñu yaar tout sous raison bi yëpp ñu ñoo leen daal fournir daal ñu daan jënd si kenn ñëwatut munuñu ñëw Guinée Mali Guinée ak Mali doom ñun Sénégal li ñuy liggéey ci daal ñoom mënuñu ko xoolal ñoom ñoom ñoom sax xajut ci ñoom doyu leen satisfaire leen pardon satisfaire leen doyul waxuma la nag yi réew mi aussi ñu toog di ñu xool bunt yi tëju na dara mënul ñëw ak les bagages yaa ngi fa ne gajj jaay yëpp jaxasoo nañu te c'est des jeunes yoo xam ne ay responsable lañu barza barzaq bi fi amul li ci ëpp ñoom la li dama ci am lu leer du ma di ko wax nee naa la boo téyoon sama loxo ma la ci ñu ci faatule hmm. ay gone yoo xam ne dama leen xam-xam seen tur xam seen sant ba tey xamatuñ ci ñoom dara te ay liggéeykat la ñu woon fii dañu dem ba bu ñu ëwee daal a jaay gis fu ñu koy jaayee te duñ koy teg ko di ko xool léegi nooy def banque lebal loo bët bi sax mu ñëw taxaw sa kanam sama xaalis bi sama xaalis bi kenn di la taxaw ibar fi nga luyee place bi naan la sama xaalis bi ki nga luyee sa néeg yi ñi ngi nii waari onze Medina ñëpp ña nga fa nekk fa ne stade des fa ñëw moo dañ leen di yëkkati génn leen te onze mooy patrimoine mooy le cordonnier du Sénégal ñëpp xam nañu ko surtout foo ne ci àdduna bi wone ri onze ñu ne cordonnier ñi ngi doon ne dañ leen di yëkkati mm. yëkkati goo xam ne nii amut sommation amut situation amut amul amul lenn daal foo xam ne ni daal tegugu nañ ci ci fu wóor waaw est-ce que foofu ngeen toogoon ne yéene na ko moom tamit parce que artisan yi tamit man loolu moo ma xaw a jaaxal da ngeen di fekk foo xamante ne moomu leen ko te wóor na leen ne moomu leen ko au lieu ngeen teel a fagaru mhm. ngeen di amee moom ka moomal ko seen bopp mhm. mais da ngeen koy a ñu fa a du ah. am cër boo xam ne nii boo ñu fa yëkkati du yóor du yomb du yomb waaw parce que ñun bañ fay nekk avant indépendance dañ fay ne ba nëwee suñuy maama fa demoon ba nëgëj kon am na lu ñu fa def ba mu nekki barak ak ba Blaise bi nekk benn tali kase foofu ñu def tali bu ndaw boobu ngeen di romb yéen nekk ay douze ak i atelier ude ba mu daj ñu ñoo fi ne nekk fi nekk fi pendant 60 ans kooku boo xëyee di ko fi génne même bu ko moomu te di ko fay luwaas mos ñu ñu faa aal. waaw li ngeen doon fay luwaas lu tax yéen jëndu leen ko. moom moom baal moo ñëw xanaa koy jaay ngay jënd. Ah. seen rajo bi da ngeen ko jënd yéen ko moom. c'était comme ça luy jaay ngay jënd jaay ko. commune de la Médina moom moom foofu jaay jaay bu ñu mais moo ñu ko luwe may nuyu monsieur le maire Bamba Fall de passage eh, di suñu mbokkum taalibe di nit ku baax aussi it eh, ka ay ndawam ñoom ñoo fa nekkit eh, Médina ñun ñoo ko bokk Médina ñun même bu ñu jógee ci àll ba ñëw fa it dañ fa am sañ-sañ léegi dañ fa yàgg dañ ci bokk man mi doxee sama soxna Médina boobu la juddoo rue bala maa dem a nga jaarim di sëy kon defe naa man kenn mënu maa génne te Medina. Hmm. ñooy samay goro keneen ak keneen ci biir noonu ñu am fay soxna. joxuñu leen sommation joxuñu leen dara joxuñu sommation. même bu ñu jëlee war nga man nit ki boo koy jëlee nga ne bu ma la jëlee fi fee laa lay yóbbu ab Sénégalais ñun duñ ay Guinéen. du duñu ay maliens duñu ay burkinabé nous sommes des sénégalais. kon dafa mel ni tawat bi su ma la déggee euh, euh, ndongo. Mhm. moom la mécanicien bi di jooy. Mhm. dañoo tiit nga baal ma foofu. waaw dañoo tiit ba mënatuñu liggéey. di liggéey ba pare fi nga ne bët bu seen nga naan suba ñu yëkkati ma suba ñu yëkkati ma esprit bu loolu rek menace la esprit bu tranquille sax doo ko am te gis ñu ci kenn ku ñu intervenir ko ñu ci taxaw man je suis pour ko combattre ça fu ma ko war a mën a jooytoo wala wax ko fa dinaa ko fa def. ñu xool nu ñuy taxawoo baxuñu sax ñun duñu fa jóg puisque moomuñu ko mais boo jëlee doomu aadama bi fenn ab étranger sax kooku mën sa doomu réew war ma ko ne waa jërëjëf léegi comme fii def ngeen fi juróom benn fukki at dañu ko soxla dañ fi bëgg def nangam ak nangam parce que nee nañ euh, euh, yi stade yu bees ñu bëgg defar mm-hmm. stade olympique dañu bëgg a modifier stade Iba Mar Diop ci d'après rumeur yi ñu am ñun rumeur ñun woowu ñu ci benn salle wala réunion wala benn ministère wala direction wala xam nga wala mairie woo ñu wax ñu lu ñu mën a dégg lu ñu mën a xam de ci ay waxtaan ci weeru ñu for nii waaw léegi nag yow seen gannaaw seen kilifa ah, ñi ngànk ñi nga xam ne ñoo leen jaboote ñoo leen dul informé ci dara ci lu mm. jëmee noonu wu wuñu leen ci dara mm. est-ce que tamit yéen dina jar ngeen dem tamit di courir seen ginnaaw ak yooyu même su fekkee ñoom existé wuñ sax lu tey yéen yéen ngi def non non ñun courir ñu derrière kenn pour muy leer ñun dañuy réclamer suñu ay droits suñu ay raisons derrière quelqu'un dégg nga wax bu baax maa ngi lay dégg bu baax courir kenn kan laa def dañuy courir derrière am ñun suñu ministre tutelle la ñu am ministre tutelle xam nga moom yorut ay du du maire de la commune yorut commune ba loolu man xam naa ko yorut commune Médina ñaanal ñu doon nga la mën a waxtaan waaye foofu moom wax dëgg moomu ko waaye mën na am fenn fu mu leen euh, voilà voilà jëma ñun li ñu koy ñaan kay ñun moom ah. Ah. mu wutal ñu fu ñu dem ah. dégg nga wax bu wér waaw ministre wutal ñu fu ñu dem te jam ñaa jofee am nañ fa lu mat 15000 xaw ma 16000 hectares yoo xam ne nii artisan yi lañ ko fay dagal waaw 50 hectares yi dañu waxoon. digoon 50 50 hectares. 50 hectares yi moom diggoon nañ ko fii artisans yi te boobu ba léegi nag nee nañ ne kenn xamul nan la décret bi bañ ko signé kañ la waaye ba tey mënuñu leen wax ne ne fii la. voilà am nañ ko ci jam yu ñuy dégg information waaw loolu. Hmm. ñun war nañ ci am wala même bu du foofu it ah ñu wutul ñu feneen foo xam ne nii que ñun artisans yi dinañu fa regroupé parce que man man dama xalaatoon ne Sénégal sax man fi ñu toll ñun dañoo waroon a def comme yeneen réew ay pôle pôle d' artisanat. Hmm. créer benn site pôle boo xam ne dañ naan fii mécaniciens yi ñoo fi nekk. waaw ah. fii cordonniers yi ñoo fi nekk fii tailleurs yi ñoo fi nekk fii mason yi fii transformatrices yi xam nga fii peintres yi fii poterie yi xam nga li ma la wax noonu laa foogoon ne noonu la ñuy defee artisanat ci réew mais ñun dañu disperser corps yu métier yëpp dañu disperser boo demoon ci biir artisanat ni ngay dugg buggee jowaay bay booy dugg yettkat yaa ngi nii uude yaa ngi ne teer baa ngi nii tax ñëpp a jaxasoo organiser ñu organisation mais gan bu ñëwoon sax day def carrément bu ma jëlee ligne bi nii rek damay dem ci ñoom diw bu ma jëlee fii damay dem tam noonu la war a demee lii nag bu ñu jëloon tey par exemple Diourbel ñu jël tous les cordonniers du Sénégal par exemple yóbbu Ngaay wala ñu ne xajuñu Ngaay dañ def Ngaay ak Diourbel mu écarté wu tuuti dem jël Kaolack na leen jël transformatrice yi yóbbu Kaolack par exemple dem na nañ leen jël beneen sud yóbbu fa mécanicien yi ñu ne Thiès nañ jël fii def nii nañ jël fii def nii gan gu ñëw ci réew mi ne cëpp gis nga lu mu soxla ci œuvre xam ne fële laa pour am ko fa bu ñu paree nag wutal ñu ay secret sale ci réew mi yoo xam ne nii fi la ñuy exposé mhm. te état nee naa leen toujours maa ngi koy wax. waxuma moo jël xaalisam waxuma du ko jël loolu expert ñoo ciy liggéey ñoo ciy wax. Mhm. mais lu mu bëgg a def dina ko def xanaa lu mu bëggul def mais pare pour liggéey ñoo nee naa bi mu bëggee Sénégal gépp di tëdd vingt heures da koo mhm. ko neexee mu ne léegi vingt trois laa bëgg da koo def dégg nga. maa ngi mais nag avec ministre Dame Diop bii ma gis man am naa yaakaar lu bëri dina changer secteur artisanal bu Sénégal parce xale la comme ñun jeune la bokkul ca ancienne génération nouvelle nouvelle génération la bokk ma koy nuyu monsieur le ministre de passage avec tout respect que je lui dois ma lay nuyu di la remercier di la jaajëfal ak tout son staff et ak tous les directeurs ak suma xarit Pape Modou Fall directeur de l'emploi de la formation professionnelle bon moom gis naa ci moom volonté politique artisanat bu mu am. parce que bërki démb rek ñoo ne Médina seet suñu waaye moom fu mu ne nii bëri na ci njabootam ñoo xam ne moo leen njaboot tey jii wax dëgg ci yàlla ñoom ne nañ daf leen bett parce que lim ñu waxoon lim mu ñuy amee woon yaakaar ci moom ba léegi desantagul ci ñoom loolu tamit est-ce que laajul moom it mu jéem a defaraat calendrier am mm-hmm. wàccaat ci base bi xool njabootam yi nga xam ne ñu ngi sonn jamono ji surtout nag mécaniciens yi nga xam ne ñoo nekk ci kàmb gi mm-hmm. ñooñu fu mu nekk ni keroog dañ toog ba guddi mm-hmm. sommation dañ leen indil sommation mercredi jeudi ñu xëy ñu loolu ko te fekk ñu ngi doon dox pour ñu may leen deux jours ñu mën a déplacer seen oto ak seeni i matériel mhm. euh, bon ci guddi gi dañ ñëw yàq seen bagage te nee nañ boobu ba léegi seen jëwriñ gisuñu ko waxu ci yeeyu ci yàbbi te lu mu bon bon massawu leen sax mhm. woo leen massawu leen sax dana doon gën a rafet sax ñu xam ne ne seen jëwriñ mu ngi leen di bàyyi xel mhm. mais boobu ba léegi ñoom ñaata yoon lañ leen fi jëlee ak ñaata yoon lañ leen yàqal am na koo xamante ne Adama Lo 2 millions lañ ko yàqal te borom oto yi mu yore woon te ñu yàqale ñoo ñu ngi ko topp tey di ko fayeeku bu ñu sax caabi woon ko ginnaaw bu parce que fa nu nekk rek alalu jàmbur dañu yàq mhm. léegi yow est-ce que tamit jëwriñ bi tamit du jéema a bañ a rek toog ci ci xool Euh, comme par exemple ci bureau yi. Mhm. ah ñenn ñi wàcc ci terrain bi naan ko tout va bien. Mhm. mbala peut-être ñii ñoo soxla tànn ñeen ñoom ñu leen neex ñi ministre bi ñii de problème bi la ñu problème mhm. ñeneen ñi tamit du xam seen problème te ministre bi du ko xam. est-ce que tamit laajul ñoom ñu changer politique comme ñeneen ñu koy def ñu wàcc ci suuf xool parce que ñoom. loolu ministre daf koy def ministre yi fi jógee yëpp tout va bien moo leen fi jëlee. waaw ah. ah, tout va bien de moo leen fi jëlee. <laughs> tout va bien alors Sénégal loolu fi nekk ku la gën a métti dañoo aay ci loolu xool ah. ministre yi fi jógee yëpp tout va la fi jëlee te ministre Dame Diop bii ma gis hmm. bu soobee yàlla booy ministre bi nga xam am naa yaakaar dina wàcc artisan yi marche ci réew mi la doon jox maanaam ñu jëlee ko fii yóbbu ci beneen ministère hmm. artisan yi wàcc ci terrain moo tax ñu jëlee fi kii li tax ma wax ko mooy damaa toog waxtaan ak moom ma xam projet yi nekk ci moom ci ñun yéen na bëgg na ko def gaa nag euh, yàgg gu fi defagu fi sax deux ans pour muy leer. xam nga administration booy soog a ñëw toog moom liggéey ba nga fay fekk rek bala nga ciy pare rek imprégné loolu la ñuy wax imprégné bala ngay imprégné sa service rek ba toog rek loolu xam nga ça prend du temps. nga wëlbati ko loolu loolu nangu naa ko nangu naa ko foofu laa ñu baa ngi nangu non nangu naa ci loolu mais. xam nga bu fekkee ne comme ñi ñu yàqal. Mhm. ñi nga xam ne def nañ ci point de presse. Mhm. télé yëpp ñëw couvrir ko. Mhm. comprendre nga li ma la mm. rajo yi ñëw couvrir ñëpp ñëw fu ñu leen jëlee nit ñi dañuy yuuxu mm. ñëw nañ ci plateau Afia yuuxu fi mm. euh, jooytuuf ko fi wax ko fi ne ba léegi ñoom gis sax ku leen ne masta ah, non eh, loolu waaw ah, loolu moom xam naa ne mu ngi suivre actualité mu ngi gis mm-hmm. mais waroon na jël sax même bi dee téléphone bala wàcc benn jour ci teenam ne diw demal ma nang waa kàmb gi mm-hmm. ngeen ne nañu muñ maa ngi am leneen lu ma leen di pare te dinaa leen recevoir mais leen na covid moo tax duñu leen recevoir non non Covid nag du tee ñuy recevoir ay nit moom vraiment loolu moom. loolu moom. muy man di sama mor. duñ leen wuyu. Covid kee da naan du ma recevoir groupe bu bari waaye du ma recevoir nit moom ndax Covid amul fenn kon Covid bi moom defe naa réew mi baax ci ñoom ñun baaxul ñun amuñu nañ ko booleeg di recevoir. waaw ah, léegi loolu doy boo doon xelal tey ministre bi lan nga koy. xelal foofu koy xelal mooy ñooñu ak njabootam lañu. Ah. ay artisan lañu. surtout doomi réew mi lañu. Mhm. da leen fee fekk te day dem ba leen fi. ñu mhm. nekk artisan. surtout fexeel recevoir leen. Mhm. wala déplacé wu taal say oto. sunu carburant artisanat bi nga dem ak ñoom seeti leen ci. bu mhm, ko wax lu dul lii. mi ngi koy nax ndaxte man nee la cordonnier bi maçon bi. tapissier bi coiffeur bi transformatrice bi. ñëpp laa yemale. Mhm. man je suis tey ñëpp nga fi artisan yi laay waxal. ministre bi boo leen déggee ni may waxee nekkut ay damay ñëw comme di ko tagg. déedéet yooyu saa dadi. Euh, wax dëgg fa yàlla. man jege naa ko. Euh, déglu naa ay projet am. gis naa ay pas yu mu def sama bët. parce que boo déggee ma koy wax. nee naa la vendredi jeudi passé dama def émission fii génn di départ ci biir oto bi ñu woo ma ne ma ministre nee na demi cinq heures dina jaar Médina seet si leen comment vous comment vous êtes. leen Oudé. waaw mais loolu dafa neex yombut. am ministre bu déplacé ak cortège am. Mm. dëgg la ñoo ko fa teg il pour nous. Mm-hmm. man xam naa loolu. mais aussi am na ñoo xam ne nee nañ fi bu jógee si suñu ko def bëgg nag yéeg a koy fay. ah mun nañu ko kii ne nee nañ yaakaaroon nañu seen ministre ndax seen ministre ku leen xam la tu xam secteur bi la. dana fa ñëw mais ba léegi ba ñëw ñu ne leen. man sama nga ci am maa toog ci plateau bi pour euh, promettre leen mm-hmm. lool. Ah. monsieur Dame Diop dina ñëw seeti leen ñoom te du yem ci seet leen dina leen déglu dina waxtaan ñoom te dina leen taxaw ndaxte dafa nekkut dafa xëy rek ñu ne ko yaay ministre de l' artisanat dafa yàgg ci formation professionnelle. surtout moom xam na artisanat maîtriser na ko. voilà mu ngoog kon nag ndongo ana la ka ngay tàngatoo. bi dafa jeex. mu ngi ni waaw. Oh. <laughs> non non na ma yokkal temps bi. non tàggatoo ndongo. ah may tàggatoo waaw Aïcha <laughs> waaw d' accord kon nag. Mhm. ngi am contentement bu mag. Mhm. Euh, mbégte mu rëy. Euh, mu rafet ci daje ci Afia FM mm-hmm. euh, ak soxna Aïcha doon def si complément ci liggéey bi fi jotoon a def mm-hmm. di fàttali ministre aussi rajo Afia FM rajo communautaire la Grand Yoff vraiment nekk rajo boo xam ne nii ñoom bu ñu xamoon li muy liggéey mm-hmm. ñoom ñoo koy jël en mai gérer ko téye ko parce que il est pour l'artisanat du Sénégal sunu buntu jooytukaay la te buntu orientation bu ministère de l' de l' la aussi kon may sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm mboolem artisan toutes les organisations tous les OPA ñoom ñëpp maa ngi leen di jox loxo la COPAS CONAMAS SENAS euh, FEDAP collectif des coordonnées maroquiniers du Sénégal BNDAS artisan forever yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu leen sant leen gërëm di leen joxaat dig daje beneen yoon saa su ko sama borom dogale may sant ñëpp di gërëm ñëpp. merci merci beaucoup Ndongo ndax euh, woo la ñaari yoon nga bàyyi sa soxla bàyyi sa yitte ñëw toog ngir wax ak artisan yi. Mm-hmm. dafa nekk loo xam ne yombul. te mm-hmm. nangul nga ñu ko macha allah gis nañu pas-pas bi nga am ci rajo bi gis na yéene bi nga am tamit ci euh, jàppale rajo bi macha allah. Mm-hmm. yal na la ministre bi dégg. Euh, defe naa bu la déggee xëy na dina xam ne ne li ñuy liggéey fii du ñun ñoo koy liggéey suñu bopp mais moom ci boppam moom la ñuy liggéeyal ndax dañu lay permettre moo xam euh, ni ay nitam mu xam tamit ñi nga xam ne ñoom la njaboote mm-hmm. nan si seen toogaay ak seen naqar ak seen i demin mu dina xam fi baax ak fi euh, baaxagul mm-hmm. ak nan lay defaroo ngir mën a si avancer loolu li nga xam ne moom mooy secteur muy portefeuille bi ñu ko euh, dénk naa liggéey bi Afia def defalu ko kenn artisan yi ci boppam la ko defal mm-hmm. di ñaaxaat tamit yi ñu teel seen bopp seen émission xam ne émission bi ñoo ko moomal seen bopp daanaka ñu wut ay partenaire tamit yoo xam ne dina leen gunge ci li nga xamante ne mooy émission pencum artisanat ci boole que nag ñu jëloon carte membre bi ñoom mm. tamit nañu fay ñi nga xamante ne tamit jëndaguñu nañu jënd te xam ne tamit rajo bi euh, seen rajo la te ñu leen di euh, mu ngi mu ngi mu ngi dox ngir mën leen jàppale dox ngir mën a fexe ba ñoom ñu euh, seen secteur bi avancé ñoom ñu suqaliku ndax ñoom bu ñu suqalikoo réew suqali kon nag wasala di foofu mm-hmm. laay tàggatoo ak ñoom dolli rek di jaajëfal bu baax a baax El Bachir Cissé mi faree ci wàllum xarale gi di jàppale saa su di jaa jaajëfal Mame Koumba Diagne Touré responsable technique bi di jëfal tamit euh, Pen Ngaan Sougou di directrice bi waaye mu ñuy orienté saa su ne waaye di jëfal bu baax a baax ki nga xam ne moom mooy euh, Fatou Ndiaye euh, yore li nga xamante ne mooy programme bi macha allah di remercier équipe bu rajo bi yëpp di leen wax nag ñu moytu bu baax a baax ñoom artisan yi surtout ñu bàyyi ci atelier yi li nga xamante ne moom mooy paasante kaasu ataaya yi nañu ko moytu bu baax a baax nañuy takk tamit seen i masque nañuy respecté tamit li nga xam ne mooy distanciation sociale bi ñu leen wax nañuy euh, soriyantool bu baax a baax bañ di buruxluxu def naa loolu suñ ko defee ñoom danañu mucc incha allah seen njaboot dinañu mucc tey Sénégal ñu bari tamit dinañu mucc ci li nga xamante ne moom mooy Covid 19 bi nga xamante ne mu ngi def ay jaloore ci réew mi waaye rawatina tamit ci bitim réew kon naa leen rek nañu bàyyi xel bu baax a baax xam ne ñoo jóge ci atelier yi delluwaat ci njaboot yi kon nañuy fagandikoo bu baax a baax di moytu di bàyyi tere xare yi su ko defee nag dinañu mën a mucc incha allahu rabbi saa su ne leen di xalaat yéen artisans yi di ànd ak yéen te naan leen ñoo far asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu baal xames jàmm. pencum artisanat yéen artisans yi rajo Afia FM amal na leen émission pencum artisanat alxames. bu ñeenti waxtu jotee ci ngoon ngeen ànd ceeg Aïcha Bagay képp ku ci bëgg a participer mën nga woote ci 88 628 05 05 88 628 05 05 bu ko kenn wuute.